eh eh ah waaye xoolal xoolal xoolal hmm. li Baye Modou kan si nabati. waaye yow borom Masaalikul Jinaan moom tamit si loxo bi daal nii la. kii jox naa ko ciseau d'or. kii macha allah xoolal borom Cambérène. lii dina la jàpp lii moo tax jeew soo taamu ko ci ñaw. lii dina la jàpp suuf si eh, kubam rafet na. ma nañu wax ci waxu. Hmm, xew mi ñëw na de ah, lii mu ñaw foog ñu wax ci waxi xew mi. doon na de ñëw na pare wax dëgg fa hmm. yàlla te faaw ñu ñu jug nag. te Ndeye Ndiaye. waaw damaa bëgg bi yoon ñu mànkoo nekk benn. lañu daloon ci taxu jaaxaj duñu dalaat dal ñu ci euh, euh, tànnbéer gi bëgguma nag mu dal ñu ci réception bàjjen bi dañ dul dalaat sax nag bàjjen nag nañ ko dooleel mooy dëgg mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bàjjen nag defanteeg moom lu baax bañ a beru àndandoo nekk benn. Mhm. nduróole suñuy hôtesse. waaw def ba mu baax. ba mu baax ko wax de. sën ya la ñu am ci mooy suñu njëkke waaw te sën nag yaay maggu kër gi. dañoo bëgg ñun ñëpp tegandoo ah. lépp sa loxo. waaw suñu ndawtal ak suñu yëpp yaa koy jox. incha allah ndax kenn du jiital nit ba pare di ko fakk sa ñun ñoo la jiital. Mhm. jàmm lañu woote nañu am jàmm rek. ndawtal bi sax mën nañoo boole ñun ñëpp. def ko benn ndawtal bu kenn xam lu kenn joxe lu ci joxe jox ko bu ko du xam lu kenn joxe. loolu moo ëpp jëmm xelu magal gi loolu moo ëpp jëmm moo ëpp jëmm eh, loolu la. Eh, eh, jotaay bi neex na ma waaye yéen lii lan la nii. <laughs> waaw ba xam ngeen def neex na wante maa ngi def. invité ngeen ma. toogal waay waxi xew de la ñuy wax. waxuñu la ne xew daal bu ñuy wax xew bu mag sax la ñu am. xew bu mag sax la ñuy wax. xew mi xew mi daa ñëw ba pare. te lii man defoon naa ni sax amu leen xel. Hmm. ndax yéen bàjjan xew mi du ngeen ci juróomi dërëm. seen njëkk la. ku ci nekk moo la wàcce. Ah, moom la am it. du dëkk seen jëkkër la. waaw xew mi du ngeen ci juróomi dërëm téeméer ngeen ci ku ci nekk ci yéen moo ko wàcce ci kër gi. yaa ngi dégg bàjjan seen njëkk seen jëkkër la donc yéen bu ngeen doon jaay sax seen yaram tey def ko ci da ngeen ko war a def. déedéet bii du xew bàjjan bi baax beneen xew la bu am importance la. yow di nga catu sa bopp. Ah, yow lii juddoogul ngir yàlla bàyyi xew moomu. eh sama lii ba ko mu tëdd fi mu ne man waxuma wax lii lii daa jugagul bay bay bay. ah beneen xew la beneen xew bu mag la. Ah, ah ah kon baax na xew bu mag. kon baax na xew moo xam ne moom ay temps wu sën la woon. waaw seen i temps. soirée salsa bu mag la ñu am ah, sax. ah cim <laughs> loola yaa ngi ne loolu du tey. léegi-léegi du ma yëngal waaye tamit non non booy léegi booy léegi seen solu dafa désordonné seen fecc désordonné ni ñu aborder jigéen désordonné mm-hmm. jigéen da nga daan ñëw fekk mu toog nga ne ko waa mu daal di jóg nga jàpp ci loxo bi ngeen ñëw danse fecc lu neex. Ah. yéen ñaar xam nga def seen garos nice. wala nga ñëw ne ko man mademoiselle pouvez-vous m'accorder cette danse. Ah, dégg nga ñu jóg ndànk. daal di daan defal ma ak da ngeen ko daan def ba bami Jooni Pacako lañ ko tuddee woon. Jooni Pacako ah, concours danse bu Moussa fekk moo koy remporté suñu. concours danse la woon dafa daan ba teg bi di ko wër. waaye li ngay wax. Ah, yow ah yow ba ah, yow cosaan dama nostalgique ah? ba soirée yooyu de moo dellu si waat moo ñëwaat ndax Secka. mooy loolu moo leen mag yéen yéen yéen yéen gone yi ngeen. non non bii nag da koy indiwaat mhm. léegi dañuy tëgg sa dafa dikkaat. Mhm. ndax Secka mu baax mi nga xamante ni mhm. borom Thiès mën a way. macha borom way wi. ndeysaan way bu baax bi samba alaar. cim àll bee lay gërëm. waaw waaw. soppi jikko soppi jikko samba ala rek dëgg dëgg ma ndeysaan dégg naa nag soirée bi daa am ku mu tuddee koo xam ne ndeysaan xam moom Secka dafa baax te ñàkki naan moom xoolu ko am ay moyen xoolu ko bokk posetam xoolu ko am wecc ndeysaan fekk koo xam ne pauvre ku amul dara koo xam ne yor jabaram yi mhm. yorul ay doomam yorul cent franc ndeysaan mu tuddee ko xew mi muy jaay jomma ñaaw dem changé turam ne Patrick la tudd di samba àllaar àll bi di samba àllaar Patrick Moor ne carrément day dem nee na yées def vestam yóbbu na eh, vestam dégg naa alo pressing bi nekk jaxaa pour ñu mhm. fóotal ko ko pour mu dem ca xew ma. am na benn xale bu jigéen nag. waaw ne yaa noo koy accompagner. waaw ko demal waaw ko demal. ba jóg ma yëy si nga am. ay sa bi ma yëy si nga am yëpp xale ba jóg. ba jóg ñu def ko sànni. jóg ñu def ko sànni rek ñu ba jóg waaye. waaye ba jóg ñu may leen ma tuuti. yéen bu ngeen bëggee ku ngeen kokkali da ngeen ko tuuti man du ma seen morom. ba kokkali. non xam naa li ngeen di wax fa ngeen jëm da ngeen a réew ba dof waaw. seen yooyu da ngeen xam fu ngeen ko jëme waaw ah, yooyu dañuy salsa de. dañuy salsa de. da nga mën a engrais pare kii de bi toog ko ci des. ne ngay kii waroon nga koo gën a koo këri. waaw ah, li ma ko xol bi a sës ci kaw da ngaa jugoon noonu di ngor. ah bañ a yii damaa damaa namm na soirée roblon maa la ko wax loolu mooy mooy salsaawe eh? no ma ko du salsaawe yow ñun fecc ba fecc fu dara newul ba dàqa fecc ci àddina battukaay ngay seen def nii muy sa fecc bu dara fecc meer fecc meer fecc année soixante waaye bu leen ma yëngal waaye ah, bu leen <laughs> non non non pourtant sax bëggoon rek ñu waxtaan. Euh, am na yu may dékk mm-hmm. yenn yi wóor na ma yenn yi leerul. Mm-hmm. man yow sama xarit nga mos a nekk. Mm-hmm. li tax man na woon la mooy kër gi lu mu jaxasoo jaxasoo bari na ñu fi nekk ñu bipolaire tay ñu mel nii suba ñu mel ne. dana mos a logique. dana mos dëggu. da nga benn position loolu nag laa xamoon ci yow moo tax ma naw la bu ñu demee ba wax ma leneen ci yow dina ma jaaxal mais lépp waxtaan moo koy andi li tax nag ma bëgg ñu waxtaan mooy dégg naa ni ci seen tànn biir ba yëfu jigéen la yooyu sax ay détails la mm-hmm. mais lenn rek moo ma ci metti mooy. ki ne dama dégg da doon bale dafa da doon bale mu génn di wax ak yow wala ginnaaw nga tibb tànkam. mu ne nag ça devient grave. man mus naa xam ni yow da am position sa position mooy défendre umu. dafa mus a nekk sa xarit. da mus a jàppale da nga mus a waxtaan ak moom génn umu ci kër gi du sa faute. faute am na moom. Fatou Kiné maa ko takk mooy xale bu jigéen. di xale bu ndaw ma andi ko fi mu nekk sama responsabilité yow ngay sama jabaru papa ngay tàntaam di gorom kon yaa ko war a uuf yaa ko war a téye yaa war a waxtaan ak moom boo bëggee jàppale umu ba fàtte ko moom da boo deful nànk di nga def fàtt ki ne li ngay bañ mu dal umu su ma sañoon daal loo jàppoon ci loolu nga bàyyi ko mënoon naa wax ak yow neneen mais du ma ko def parce que xam naa sa jukko su ma sañoon daal ni nga jàppee umu nga jàppee ko Kiné umu sama jabar la woon nekkatu ko parce que nag sama jabar la su ma sañoon nag ngeen am jàmm voilà. bu macha allah kàddu yi rafet na gàtt na du def nag lu dul di sant di la gërëm. ndax nii nga doxalee bu ko ñëpp doon doxalee réew mi na jëm kanam man ku ne xam na ne man lu may def duma ko nëbb te duma ragal bi ma waxee tànku fàtt ki nii dama ko tibb xam nga mënu naa weddi duma weddi man lu ma wax rek soo ma laajee dama naan la maa ko def mais sant yàlla gis nga fàtt ki ne aw maa moom benn rànkiñee umu nag damaa yàgg far ci moom ndax fii nga toog toog naa fi ba tàyyi di la su waxee man ko sa yónneeku ci buur kon xam nga yàgg naa laa défendre kon tey su ma wàññeeku waatee di def lii ci kër gi am na lu tax tam man wax dëgg ne yàlla ñoom ñaar ñëpp a yem ci man sama rancunier moom moom moom moo ma sonal ndax damaa nekk sa papa ci kër gi teguma fenn te maa ngi demal sama bopp kër sama xaalis demal sama bopp du daraam ci man respecté wu ma faalew ma ma xam ne sëy la rek ak loo xamante ni bu la yàlla nattoo foofu ngay jaar par la force aw ma fu ma ko mën a jubilee ma koy jaarale ci Fatou Kiné mais pour lii ñu waxtaan tey ci kàttanu yàlla man gëm naa ne dootul amati ndax xam nga lu tax ànd dagan na tàqali ko dagan na te ala kulli aali bu yàlla ne dangay àndaat ko umu man ak lu ma mënti def day am su ne du ngeen ànd ak lu ma mënti def du am kon li nga wax dinaa ci bàyyi xel parce que réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. te yow xam nga ni man bugguma lu la naqari te it bugguma lu naqari um bugguma lu naqari Fatou Kiné pour kaa yooyu noonu yëpp dinaa ko doxañ ba mu jekk ma suur ko ci ñàkk fayda dootuma def naka su dul noonu. léegi nag dinaa mel na ma melaatoon loolu ma doon def yëpp dinaa doxañ lépp pat ko ci suuf gas ko suul jàmm ne ñooy parce que loolu jàmm jàmm ko gën. te kër gi nag ñu ne ci jàmm day neex ndax ku yee fitna doo ci génn. jeex na yow li nga bëgg loolu laa lay defal. boo defee loolu daal dinañ juboo ndax man jàmm rek laay wër ak yow. Euh, te lii laa doon xaar ci yow. en fait euh, umu nag li mu def ba génn kër gi. sama relation ak moom ni mu demee woon. lu ne jëm naa ko ci. boo ko tëkkalee sa bos ak bu sama papa da ngay juum. gis naa lépp li nga xam naa ko. dafa nga mar doo xam koo koy sippi. ki gis benn situation rek wane sa position te du doon nekk du nekk yow mais luy nelaw ci yow la bon euh, dana la waxtaan ak moom mu xam ni yàlla dafa dogal mu am doom euh, te doom ji ci moom dama jaral lu bari waxtaan la moom mu xam ni jigéen ju wérul la mu toppatoo boppam li war ci moom dinaa ko def te mu génne li mu def ci boppam mais daal tey xam naa ni tagalu nga de ah. yi nga sa tante moom ci tagal rek la dëkk. man mooy tagalu chaque jour. ah waaye fa yenn saa yi bëgg a dugal xale. te dama ko mën. <laughs> sa mbaam na la xoolaat rek. njéem a gisee jaar fii sama doom bàjjen boobu ci kàttanu yàlla. ci yàlla. Ah, hmm. jàpp ci combat bi rek. ci sëy bi rek dañuy jàpp ci combat bi ci umu moom dinaa waxtaan ak moom incha allah. mu defal la ndax moom yëfi dof da koo mën daal chaque jour ma wax ko ko mais gëm naan dina ci deñ incha sama xarit waaye ñoo far yow xam nga dama laa bëgg kon jiwoon ne yow téye dama frère de cœur yow doo sama doom <laughs> sama tante nga sama xarit nga sama sœur nga waaw loolu am na démb la ah, <laughs> tey ñoo la woloon bëgg a waxtaan ak yow ndax nag yow yaay bàjjenu kër gi mënuñoo am ku la sut mënuñoo am ku la raw maa ak sëriñ Ndeye Ndiaye waxtaanoon xadi baaba sax ci waxtaan bi loolu bokk waaye dafa dem marché waa liggéey wàccagul li ñu daloon nag bee paase bi yoon duñu dal ku ci nekk jël sa yoonu bopp kii jox la fii ci ruq kii jox la fii ci ruq loolu lañ dul def wala ñuy xaar ba jour xew fa xew ba di bëgg ngistal wala dara nga xam ne doo mën a lijjanti sa bopp yi nga bëgg a def yëpp duñ ko def léegi nag dañoo dajale woon am lu ñu am muy somb takku nag ñu fas yéene la koo ndawtale waaw jàppale la nga xool noo ciy def ndax nag lii jot jot na mhm. buñ la ko joxee xëy na am na ci ruq boo ko mën a dugal dëgg la ñu bëgg nag bi yoon nekk benn. xew mi ñu mal ko ci jàmm àgg ci jàmm. dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabil aalamiin. xaalis bi nag mi ngi ci sën. Mhm. dajale nañ ba am suñu 500000. Mhm. yaa ko moom. yaa ko mhm. moom mhm. yaa ko moom dëgg neexul te leneen suñuy pep ak suñuy pepet yëpp yaa ko moom waaw dëgg neexul te astu fi nga waxee rek fa waxee mhm. ndax ñun ñëpp benn lañ la kër gi dëgg bien vrai ne lu ne xew na fi lu ne na ñoo dem ba soppaliku euh, so soppiwaat jikko wut suñuy sarax ak suñuy ñaan bëgg a booloo ñun ñëpp doon benn dëgg la ndax benn lam du yëngu du dëgg te ñun ñëpp benn lañ nag bàjjen ndax euh, ñun ñii ñëpp ba moo ñuy moo suñu borom kan moo ñuy denc. dëgg la kon nag bu ñu àndee dañoo war a ànd. Mhm. du dëgg mhm. yow mii nga nekk suñu njëkke nag. Mhm. njëkke bu baax. njëkke njëkkante macha allah. ah ku sañoon nag nga doon njëkkee. dëgg la waaye ñun yàlla moo ñu booleeg yow. li ñu bëggoon nag comme que bés bii nag ñëw na ba pare li amoon am na ba pare muy takk jàkka beeg tànni biir bi. loolu li ci am dañ koy jël rek teg ko ci paas yi. te ñëw ci présent bi. dëgg la ñun dajale suñu lépp mhm. suñuy nit dimbali ñu mhm. suñuy mag dimbali ñu mhm. ñu ni nag dañ lay dimbali jàppale la ndax dimbal danga koy teel a joxe la boo bàyyee ba bis ba fu mu koy def da koy may ay géwal yeeg yooyu rek du dëgg nii nag lañ la ko joxee nga mën see régler say problème léegi nag comme nga doon nañ benn bàjjen damaa bëgg nga jiital ñu seen mii mooy taaw mooy a kër te xew mi xewu mag la mhm. kon nag xew mi dama bëgg nga jël sën mi teg ko sa wet mhm. mooy magu kër gi mhm. buy ñaw robu droit tam buy ñaw robu turfetam mu ñaw ko ànd ak yow du dëgg ñun ñii li amoon laay bañ mu am asu Euh, nax euh, yee dafa amoon ay problème yu bari yu ci amoon yu nga xam ne ba après xew bi yëpp dafa dalaat sama kaw te loolu laay bañaat ndey njaay kaay yaa may dar yaa may yóbbu salon yaa may yóbbu ci yaa faa ku ne di ma cappe kër naa di ma bombee bër loolu dootu fi amati mhm. ñëwal yaa may accompagner te bu diw yëg bu kii yëg bu lii amatu fi léegi lu ñuy wax ñun ñëpp a koy waxatoo na waxandoo toogandoo nasandoo ko mhm. bu xew bi amee nag mi ngi noonu mhm. sën a ngi nii sa yéen a bokk seen i yee temps mm-hmm. ñun ñii temps nag ñu xool nu ñuy def pour mm-hmm. euh, daar la rek ñun mm-hmm. dinañ ne si ginnaaw mais seen a ngi ni jiital ko man moom wax dëgg fa yàlla damaa weex plume li ma daloon bëgguma mu dalaa ma te dama nekk nag ci situation fi ma tool nii sax xew mi dañ maa tere woon ne bul génn damaa ëmb ba samay nopp fi tool du dëgg léegi nag loolu daal moom laa amoon lu ma ci sànni xaalis bi yëpp nag jox nañ ko sën wax dëgg fa yàlla man moom samay mbokk jàppale nañu mhm. ami seen mun lay binta se mu pari mhm. nee na ma yaay sama rak te situation kër gi xam naa ko mhm. dara ump ko ci jox na ma joxe naa samay cotisation kenn du ma ŋaañu mi ngi noonu nag li ma am yëpp jox naa la ko léegi nag doxalal sën nga joxe ndawtal bi bu ñu woo géwal kenn ndax mu mbaay la ñuy bane ma mbaay xam nga ñun bàjjan benn njëkkër la ñoom dañoo bari li woon muy yow ñu ne nañ woote nañu xàccandoo dóorandoo def lépp mu doon benn xale yi nag dañoo baax rek te yaru jiital ma mm. waaye kenn ku ne mënul ngaa jël sa yoonu bopp waaye man it delloowaat naa leen ko damaa bëgg ñun ñëpp rek ñu àndandoo defandoo ko rek muy benn mm-hmm. allah loolu rek laa ko bëggee mm-hmm. mm-hmm. jërë ngeen jëf joxe ndawtal wax ngeen li ngeen a ba pare jërë ngeen jëf yéen ñëpp gërëm naa leen sant naa leen waaye ndey yow laa njëkk a wax bu sën dee sol robu tur xanaa sa yaay de solo bu tur fa dañoo taxaw. sama yaay ban sama yaay daa ba dem na Burkina. bu ñuy wax sax dem Faso sama yoon newu ci. waaw dañoo dem rek ndax ba doon indi attentat dans la sûreté man damay indi attentat dans la sûreté daal di teg. li ngeen may jox nii. pepp laak pepet. Mhm. faalu ma li ngeen may jox ndax man sama jëkkër jox na ma ba ma doyal. dañoo war rek. samay mbokk jox nañ ma ba ma doy seen bokkoo ci de defal ndànk rek ndax wax wax boo gis sax am na fu mu tege. kàddu goo gis am na exception waaw boo jëlee kàddu teg xam naa fi mu jëm man doom man doom màggatum ko roj kocc laa li ma yéex a sëy lépp li ma xam-xamu leen ko li ma def leen ko fa leen tama teg sama tànk gune ko fa teg tànkam daal di damm man bët boobu xoolee xam naa ko lépp loo ma def xam naa ko xaalis bii ngeen jël jox ko nag dinaa ko jël di ci xol bu sedd guy bii boo sax ma sànni ko lii nag moom nga ñu waroon njëkkee jël xaalis bi rek da ngay bi ngeen wax dama ne patt leen déglu bu ma ko may ay géwél seen yoon newu ci su ma ko may ay tëgg seen yoon newu ci téeméeri junni ngeen ma jox te Assane Mbaye mi war a way xew mi ñaari million laa ko jox ngeen war a xam ne man pare naa Assane Mbaye géwélu VIP ngeen xam ne man pare na kon nag li ngeen ma jox bu ci kenn sànni ay kàddu da ngeen may jox ma jël aisément ngeen wax ci ay kaddu ma dale leen ko aisément bu leen ci gën a. waaw mais di. ay kaddu déedéet fi dara na loolu laa si ETSF teg. boo leen gisee nag ci jour ku ma neex laay teg sama wet bu mu leen déranger. Ah! su ma neex rek jël seen ni ko kaay toog sama. déedéet moom nañu àndandoo rek ñun ñëpp toogandoo ah, benn waat rek ñun ñëpp ay sa bopp ci kii bi. déedéet du loolu damaa a rafet. bokk table toogandoo moo léegi ndawtal gi anam. su ma jógee léegi maa ngi jóg léegi su ma jógee léegi jox la ko. Ah, ma jógee ko waroon a toogaale nag seen nag seen jox nañ la xaalis bi. Ah, su ma jógee rek jox la ko compte ay 1000 francs 2000. ah di compte ko ba mu mat. yow kii du fa. c'est en soi la mu muy toog ay robe droit di di wicc nii. Eh, bàyyi ah, seen bi lu ko dal léegi yow. sa xew bi yow bàyyi nag doo wàññi sa waxtaan bi. te xam ne da ngaa wàññi. waaye xam naa nag man lépp ko xam naa. bis boo demee France sa wax mii dina wàññi ndax ñu la gënoon a wexa fi de. dëgg demee France ba ñëwaat. di nga sa wex bi dina wàññi. man man France demee Dubaï kooku sa yoon néew ci. waaw seen bi daawul xaalis yow ma yëkkati wala ma yow. man de lu ma la yëkkati. waaw man daal sama man daal na xaas bi ñëw ñu lijjanti li ñuy lijjanti. na fexe rek ba mu fi ñëw naa manqué na ñaar dara manqué na ah, dafa yàgg. kat du ma cotiser ba pare xaalis bi wàcc fu ne. ah damay ah seen tamit yàgg na de man la nu xere ba bu cent francs ma ah, fa ma ko dencoon a sori ah yow looy denc lii nag ah dafa wóor boo ne ci kër ku mag dangay denc doxal borom bàjjanam moom xeeb nañ ko torop nag wax dëgg waa léegi looy jooy nag nag bàjjan nag yaa ko moom nag c'est l'émotion c'est normal c'est normal som bu mel nii ñu jox la ko ci xew mi kañ c'est normal waaw bàjjan nag bàyyi sa jooy yi nag lii yaa ko moom nag yaa ko moom nag bàjjan yaa ko moom <laughs> bu ñu amoon lu këpp jox la. ndax man pour man du dëgg sa dëgg. ndeysaan na nga mel ne ah. nag dafa c'est loolu. bu ñu amoon lu këpp jox la ko de bàjjal jaral nga ko. yaay bëggoon naa ñu waxtaan Mhm. waxtaan bi nag ute na ak waxtaan yi ñu daan waxtaan. Mhm. ndax xam naa ni tooñ naa la torop te tàngal naa sa xol. Mhm. <coughs> te loolu waruma waaye nag nit ku nekk nit nga te li may dund moo metti loolu rek moo tax may def yéen mais xam nga ni man loolu du sama jikko te xam nga ni man lu ma am yow yaa ma ko gënal. sama salaire sa soxlawu ma ci dara à yére yi may sol sa soxla moo ma gënal lu ma mënti am ma faj ko ma bëgg na nga baal ma bu baax a baax ndax xam naa ne tooñ naa la baal ma àq. aw yoo xam nga man mënuma laa mere yow kay yaa ma mere woon li nga ma wax nag dégg naa ko lu bari dinaa ko bàyyi. soxla boo amati walla naqar boo amati walla nga nekk ci benn jafe-jafe ma ko yàlla jàppal ne balaa ngaa gis kenn mën ngay jëkk a gis te loolu moo ma war xanaa dafa fekk ne kay man danga ma dul wax danga ma ma daanul wax danga daan dem di waxi sën wala nga wax xadi daanu ma xam mais gis nga nii nga def tey bu fekkoon ne nii nga daan def bu njëkk awa nan nga may ñëwee di ma wax say soxla ma di ko ignorer di ko sànni te ma jur la am la yow kese nga nekk sama cappaajul kon xam nga du def yenn nii gis nga amul bi ma am ci yow mbëggeel bi ma am ci yow dara gënalu ma ko ci àdduna duma ko sànni du ko foowe man yaay sama àdduna. lay xam naa loolu. yaay nag. lu balu doom àq waaye tey man maa lay wax baal ma àq dootuma la defati wala ngay gisati ci man dara lay naqari. yaay dama àq. billaay li may dund moo metti rek moo tax. Ah, xam naa xadi sa xam na li may dund. billaay xam naa sama dund. merci. <laughs> amati dara la nekk dégg nga fi sa bopp. <laughs> yaa léegi dama xale de. waaw tegal fi sa bopp nag lii laay waxati tegal fi sa bopp. non hmm. ah, xam pusi ko. <laughs> waaw guddee ñu dem reer. waaw boo bëggee ñu dem. tey ñoo euh, ñu lekk glace ñu tudd sax. Kajoor glace Kajoor glace. waaw lan guddee ñu dem amul benn problème. après ma fexe sa xol. waaw baal ma <laughs> baalal nga ma. <laughs> waaw waxal ma baal naa la yaay. baal naa la nag yow it nag loo bëgg nag baal naa la. Eh, sama xarit. ay xarit lañu. sama yaay dafa rafet. yooyu bàyyi ma man sama yaay dafa rafet. sa yaay rafetul dara bàyyi ma man. dàq. Hmm. <laughs> man lu sa bopp moo ma métti. gis nga ni nga jox ma sa papa da gaa ma wax la ak rafetoon. Hmm. <laughs> ndeysaan daa def waaye sa papa. waaw ma sëbe bu du woon damay ñaaw yow <laughs> doom ji ndeysaan.